Bonsoir, comment tu vas? Ça va très bien. Qu'est-ce que Abdou Niang ñal léegi leen tëbëri ni taw fii Farba mu ne Dame Mbodj ak Kélé ñëw dañoo ñëw pale gisante ak Macky Sall quoi mu ne passeport diplomate moom lañ bëggoon loolu de doy na war Farba mais réew mi nag war nañoo xam maanaam comme nguuru Macky Sall gii daal maam façon nit yi ci feeñ ay Farba ay Moustapha Diakhaté ay Madiambal Diagne bu dee feeñoon nañ nag mais comme ni ci nekkee nii daal maanaam xam nga nit mën naa amuk xam-xam ba pare yorug caay-caayam nit mën a amuk caay-caay ba pare tamit maanaam am njariñ mais man ñii wax dëgg yàlla gisuma lenn loo xamante ne maanaam amal nañ ko njariñ état bi wala ñu amal ko Sénégal xëy na nag état bi ñu amal muy Farba Ngom moom man damaa jàpp ne mooy koo xam ne waxkat la boo xam ne fa mu gën a ñaawee te moom amut lu muy rus yàq nit ki jaral na ko moom mu yàq boppam yàqaale kooku yéen ñëpp nag gis ngeen Farba Ngom fii la toog ne man ak diw ñoo àndoon di jëli xaalis moom jël na man jël naa moom xam na man xam naa te ñi mu wut a génn di ko weddi kooku it génnut weddi ko léegi tamit mu taxawaat ni ñii dañoo demoon seeti Macky Sall ngir am ay passeport kon li ñuy wax Sénégalais yi gëmuñu ko man nag damaa jàpp ne moom ku yàq boppam koo xam day yàq boppam di wax ci boppam wax ju ñaaw doonte wax ji dëgg la nag bu jógee di wax ci keneen lu dul noonu. yaakaar naa jot a yàq taa de maanaam Farba sénégalais yi moom wax dëgg yàlla yaakaaruma ne am nañu ko ci gëm dal waaw te Farba moom yéen ñëpp maa si ngeen xam ne damaa jëlee lim am ay Dakar rek yeneen dëkk yi mais Farba li mu am Fuuta la xamal ne Macky Sall maanaam gor yu gor yu yu bëree bëree bëree bëree bëri da leen a soppi ay jàmm ba pare yàq leen moo tax adduna du neex bañ tàggook moom mooy Farba Ngom li mu am Fuuta Fuuta laa wax de li mu fa am. bu liggéeyoon cent ans ci ak dundam di fayeeku weer cinquante million mënu koo am waaw di fayeeku weer cinquante millions mënu koo am Farba Ngom ak xaalis te Farba Ngom maanaam ban importance boo xam ne Farba Ngom amal na ko Sénégal moo tax gis nga yàlla xam na ne système bii nii maam dafa jot waxuma par parloo de mais dafa jot ñu prime ko Sénégal Sénégal bu fekkoon ne woy politique yi yi fi nekk seen xam-xam mate na foo xamante ni mën nañoo dox ci maaye nu nit ñi mais da gis ñoo xam ne maanaam seenu làmmiñ ñaw daal ñu jël poste jox leen ko ci nguuru Macky sàll nga gis ku ñuy wax Koura Macky nga xam ne moom toog ay xuloo taasu saaga ñu jël ko def ko député waaw nguuru Macky li ci am lépp kenn mënu koo wax wallaahi lazim mais far Farba nag pour muy leer mooy sénégal yi moom gëmuñu la moom li may wax ne day yàq boppam ngir yàq keneen xam nga am nit ñoo xam ne bu ñëwee day mel ni dañuy jaay dëgg bu ñu nee man mii sax nangam naa maag diwa ànd moom da koy jaral léegi dàmbuj Farba Ngom preuve yi nii nga am ci dàmbuj wax ne da ko am ci dàmbuj ak Kéledor boo ko amoon moom li ma wérte leer lu mel ni image am naa yaakaar loolu dana génn réew mi nag moom ñi fi jub bëriwul moom loolu dëgg la mais yow moom jubadi yaakaar naa bu noonu oto ci ñi koy dawal ngay bokk far Ngom li ma leen laaj yéen sénégalais yi waxuma loolu mu amal njëriñ bu mu amal Macky Sall mi ngi koy saagaal mi ngi koy xasal mi ngi koy attaqueel gis ngeen ni mu def Moustapha Cissé Lo ci yoo xamante si nii kenn du ko tudd ànd koog doomu ndayam dégg ngeen coowal léegi Moustapha Cissé Lo mais ban importance la Farba Ngom amal sénégalais ban njëriñ la Farba amal sénégalais yi loolu mooy li ma leen di mujj laaj.